tey jii ci àjjuma gi fukki fan ci weeru novembre ab final moo doxoon ci diggante ñaari équipe yu nekk fii ci Touba Bogo boobee final nag ñoo ngi ko parrainé kii di Serigne Afe jaw ba tax mu daal di ànd ak une forte délégation ngir teewee ci bis boobee. ca délégation boobee mënees na caa lim ay xaritam ay jegeñaaleem ak ay am di jàmmam ginnaaw ba ñu defee présentation ñaari équipe yooyee kii di Serigne Afe Diaw daal di nay joxe coup d'envoi ba final boobee opposé woon ñaari équipe yooyee au but ci la daal di mujjee ndax ndam demul ndam dikkul ginnaaw nag ba ñu procédé ci tir au but boobee kenn ci équipe bi daal dinay jël raw gàddu gi kii di Galas Mbaye bokk ci délégation bi daal dinay jël ay kàddu ci ndigalu sëriñ Afe kàddu yooyu di kàddu yi sant ak gërëm ak it yéen a gi sëriñ Afe am ci dëkk bii di Touba Bogo li tax mu dal xel mooy Bogo su fekkee ay ndaw dan fee ne organiser lu mel nii woote jàmm la paix def ko di ko doxal di ko doxal ban dem ci final bi amuñu kenn kun ko tuddee ñu kenn ku ne mën nañ ko koo tuddee ñu waaxu sen xel xalaatul fenn fu dul doomi dëkk bi di Afé Diaw mii sant ak ngërëm na leen délégation bu am solo woo ak ay ñoñam leen ñëw leen ñu dem sama dëkkub maam kon gileem ñibbi na gànnaar su loolu amee biñ dikkee yéen waa Bogo ni ngeen ni ngeen ñu dalalee kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ak li ko wër lépp mbooleem li wër Bogo gépp ñëw nañ ci final bi sant nañ leen gërëm nañ leen bi ngeen dikkee def ngeen ko ci fair play xuloo amul xeex amul te loolu dong mooy jàmmi réew kon su fekkee loolu am na war nañ leen sant war nañ leen a gërëm yéen jour yi waaye jour yi suñ leen santee ba pare yéen ñi nga xamante ne yéen ay dirigeants yi ak coach yi war nañ leen a sant ndax yéen a waral jàmm am su dul woon ak yéen jàmm du am kon sant nañ leen gërëm leen sëñ Afe nee na sant na leen bu wér a wér gërëm na leen bu wér a wér am na ci loo xamante ni jamono jii ñu toll dafa tàmbalee dugg dugg ci réew mi muy politique te ñun ku ñu xam xam ñu am fulla xam ñu am fayda ndax dëkk bii sëñ Fallou ko sanc ku jaaxle nag ci sëñ Fallou ngay dem mooy yor lépp mooy bogo lu waay kat kat dëgg xam nga borom dindeeg bogo a ah, ah, tiit bu raf jël leen seen i carte d'identité bu fi benn boja boja ñëw di wax ngeen kay jox téye leen bopp sëñ Afe nee dana toog ba xool koo xamante ne leer na ko naññ ni su ànd moom dana liggéey dëkk bi raaran raaran bi dañ cee sonn te li war a defaral boppam entreprise dañoo war a ñëw bogo xale bu am jom dëgg-dëgg soo koy war ñëwal bogo am nañ jom gëm nañ seen bopp. am nañ dignité am personnalité am nii damaa taxaw di damaa dikk taxaw waa ji taxaw may waxtaan ak moom mu ne ma su ngeen gisee mbir mi xaw a guddee danoo demoon liggéeyi may leen liggéey jaamu yàlla moom la yàlla sentaane kon su ngeen ci nekkee dërëm bi génnul gaal gi. kon nag du ngeen dem ba toll fii di alsaaloo seen jëmm ji sëñ Afe nee na ngeen toog déglu ko dana xool ki nga ni mooy arrangé Touba Bogo mooy arrangé réew mi mu ànd ak moom su boobaa day dikk ne ànd leen ak moom. mu ngi leen di sant di leen gërëm. ginnaaw kàddu yi rafet yooyu Galas Mbaye yëkkati jëmale ko ci waa dëkk ba kenn ci dirigeant équipe bi doon jongante moom it daal di nay jël kàddu yi cant ak rafetlu teewaayu parrain boobee di Serigne Afe Diaw mooy la ca gën a fés. lii nag doon na loo xam ne biñ koy def. ngir bëgg jàmm ak salaam moo taxoon ñu di ko def ak jàmmi dëkk bi ak bu ëllëgee danañ dem ba maanaam mën naa amal dëkk bi njariñ njariñ loolee nag aju na ci lépp ndax benn am na loo xam ne dëkk bi manqué na ko bëgg nañ koo am te mënuñ koo am ab ambulance bëgg nañ koo am hôpital bu baax bëgg nañ koo am aw yoon bëgg nañ koo am am ndox it amuñ ko parce que suñ forage bii li ci aju dëkk après fukki dëkk juróom-ñaar te mënuñoo amum ndox te loolu war nañ cee mën a góorgóorlu bu baax président war nañoo mën a gestu ak képp ko ànd ak moom ñun nag ñàkkuñ fulla ñàkkuñ fayda ñoo ngi toog di dégloo képp koo xam ne daal man ngaa ñëw defaral ñu suñu dëkk bii ndax ñun moom lañ am boo ñu ko mënee defaral ñu ànd ak yow ku ñu ko mënta defaral nag ànduñoo ak yow ginnaaw bu loolu jàllee suñ affaire mii ñi ngi koy nuyu moom it di ko siyaar di ko delloo njukkal ndax xam nañ ko bu baax a baax a baax ak rakkam jiiri sëñ Mourou Diaw mii xam ne moom la àndal nga xam ne ñun xam nañ ko bu baax ak mbokkam yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi ku mel ni Ala jaw buñ ko tuddee rek tudd nañ ñëpp kon ñun xam nañ ko muy doomu dëkk bi mi ngi biir Touba waaye Touba boo gi lëkk ndax dafa dem dafa liggéey dong Touba ay tool la ci moom day liggéey bu wàccee fii la jëm kon nag euh, ñi ngi lay siyaar te di la xamal ne la lépp loo bëgg soo ba ngoon jot ña nga ca ànd nañ cee yow tey ànd nañ cee yow ëllëg ñun daal ñoo ngi lay diglu loo ñu wax ñu ànd cee yow di sant ñi nga xam ne ñoo ñooy ñaari équipe bi nga xam ne ñoom ñoo fi daje woon di di finaalu tey suñ borom def na ci jàmm def ci ndox mu sedd te lépp ci biir dëkk bi la nekk kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah loolee nag boo ko déggee moo di jàmm rekk moo mat a ñaan ndax sport fair play moo ko lal te parrain bi it moo ngi rafetlu geste bu rafet bi waa tuuba bu ko def daal di koy tuddee bis bu toll nii moo tax ma ngay sant ak gërëm waa dëkk ba